li may wax ne émission bi euh, bu ñu fi dalal nit day ànd ak dal mu wax ñu ay dëgg loo xam ne day jariñ askanu Sénégal dëgg ngeen nag coowul li nga xam ne moo di euh, licence de pêche yi te li may wax rek feebaru coronavirus bi tamit warul tax ñu bàyyi lépp loo xam ne dafa war a jëm ci wàllu bonne gouvernance parce que nag dafa lu bari loo xam ne da ciy xew ñu fàtte ko dem ci coronavirus moo tax tey jii ma dalal Saer Seck mooy jiite GAIPES gaypes mooy kuréel bi nga xam ne moo ëmb euh, ñiy liggéey ci wàllu pêche bi yor ay bateau mu am nag coow lu am euh, ñuy wax ne am na licence de pêche yoo xam ne dañ ko jox ay chinois ay navire chinois lañ ko jox coow li bari lool Euh, Saer ma nuyu la jox la kàddu gi nga nuyoo ko euh, mbokku téléspectateurs yi. jërëjëf euh, Papa Alé di rafetlu teewaay bi ma teew fii tey. ci sa plateau. di nuyu téléspectateur u Sen TV yëpp. di nuyu mbokku Sénégal yëpp. di leen ñaanal kooru jàmm. di ñaan itam suñu borom aar ñu. ci mbas mi nga xam ne moo daanu suñu kaw. vraiment aar ci doomu Sénégal yëpp. Saer question bu njëkk lan moo xew. lan moo waral GAIPES génne li nga xam ne moo di communiquer pour naqarlu ay licence de pêche yu ñu war a joxe lan moo xew. waaw li xew mooy euh, ñun dañu toog ba euh, jëmmi jamono booru 13 euh, avril. Mhm. ñu jot bataaxal boo xam ne daf ñuy doon convoqué ci commission boo xam ne ñun kuréel goo xam ne ñun ci la ñu bokk muy commission consultative bi nga xam ne fa la. demande licence wala promesse de licence yëpp war a jàll. Mhm. ba ñu ko jotee jàng ko ñu ñuy woo ci euh, consultation boo xam ne à distance la ndax mbirum mbas mi kenn dootul def ay réunion yoo xam ne ay réunion physique la. Mhm. Euh, loolu lu lu baax la waaye biñ ko jàngee ñu gis ne juróom fukki gaal ak juróom benn la ñu waroon a saytu. pour seet ndax dañ leen di jox promesse de licence wala duñ leen jox promesse de licence. juróom benn fukk. non juróom fukk. juróom fukk ak juróom benn. ak juróom benn. cinquante six cinquante six euh, muy loo xam ne kenn mosu koo gis ci kuréel lu lu toll noonu lim toll noonu. cinquante six navires waaw ñu war koo saytu kenn mosu koo gis ci histoire u pêche u Sénégal man maa ngi ci pêche depuis soixante dix huit loolu mosuma koo gis mosuma koo fekkee. bi loolu amee ñu gis ne gaal yëpp presque ay gaalu chinois la. Mm-hmm. te mu amoon mu am fi déjà coow loo xam ne. Mm-hmm. ñun euh, am na luñ ci jot a xam mais dañ ko yéex a xam loo xam ne euh, quatre-vingt-dix-huit euh, ak quatre-vingt-dix-neuf 2018 ak 2019. joxe woon nañ fi déjà ay licence su chinois ba ñu koy saytu ba créer commission boo xam ne Aminata Mbengue moo ko créé woon. moo diggante janvier la woon ak février parce que man. li licence yu ma jotoon man. diggante janvier la woon ak février tolloon na ci douze. waaw ñun bi ñu. bi ñu saytoo ñun loolu sax yëguñu ko woon mais biñ ko yëgee ba ñu gisee ay gaal di génn di dem ba ñu laajte euh, ñu am réunion septembre deux mille dix-neuf ci la Aminata Mbengue teg kuréel goo xam ne euh, administration daf ci nekk pêche nekk ci. ñu war a saytu licence yooyu parce que nañ ko anam bañ ko joxe woon euh, euh, jaarul yoon méngoowul ak li nga xam ne mooy suñu sartu réew. maanaam dafa amoon na benn commission bu Aminata Mbengue Ndiaye tegoon pour liggéey ci loolu. c'est ça très bien. donc ñu ne commission boobu pareegul. Mhm. ñu bëgg a di saytuwaat euh, juróom fukk ak juróom benn licence yoo xam ne ci même gaalu chinois yi ci la jëm woote ci vraiment euh, euh, jàmm ak njekk pour que ñu dax euh, kuréel boobu ba ñu génn ci mbas mi bu boobaa ñu toog xool li nga xam ne balaa nga joxe yeneen promesse de licence wala ngay bañ a sax joxe mhm. nga xaar ba li nga xam ne moom moo fi ne këtt ne jonn leer maanaam maanaam commission technique bi au moins expliquer waaw ne douze yi ñu joxe jaar na yoon wala jaarul yoon. waaw mais douze yooyu moom man xam naa ci dara parce que jot naa ci ay spécimen u licence yoo xam ne diggante janvier février lañ ko joxe. non mais commission technique bi. dafa jàpp sax ne. Mhm. douze yi nga xam ne ñoom la ñu gis. ñoom la ñu jot a saytu. parce que mhm. liggéey bi jeexagul woon. Mhm. douze yooyu jaarul yoon. c'est des licences hors la loi. loolu la commission bi jàppoon. commission boobu pareegul liggéey. Euh, am euh, euh, soxna madame le ministre Aminata Mbengue jógee pêche ñu am nouveau ministre des pêches mhm. commission boobu daal di commencé kenn convoqué tu ko ñu ñun ñuy relancer pour ñu convoquer commission bi pour que parce que qu'on tire les conclusions qu'on tire les conclusions euh, euh, euh, conseiller technique numéro un bu ministre bi moo doon président commission bi mhm. administration daf ci nekk maanaam waa pêche professionnels yi nekk ci ñu ne leen nañu continuer liggéey bi parce que boo xoolee papale premier gaal bi nga xam ne moom la ñu saytu ne licence yi ñu ko jox jaarul yoon mi ngi numéro 12 DAC 12 86 loolu mooy numéro maanaam mooy presque carte d'identité bateau bi. waaw 12 86. 12 86. Euh, ñun ñuy gis ne am na ay gaal yu nekk ci biir port bi parce que oh. nag ñoo bokk biir port bi ak ñoom parce que ah. mënuñ ñoo génn ci biir port bi ñuy gis ne am na ay dak batu chinois yoo xam ne ba treize trente cinq entre treize cinq ba treize trente cinq entre douze quatre vingt six ak cinq uh-huh. quarante neuf gaal la maanaam ñeent fukk ak juróom-ñeent gaal yoo xam ne ñu ngi napp naturaliser nañ leen wóoruñu ne ñu ngi napp mais douze yi moom xam nañ ne ñu ngi napp te licence yi ñuy nappee du licence yoo xam ne licence yu jaar yoon la. commission technique bi moo ko estampé ne ce n'est pas normal. ce n'est pas normal. nuñ ko délivrer. buñ ko di niñ ko délivrer. ok donc ñu ne nañu continuer saytu li nga xam ne moo fi jot a nekk balaa ñuy xool juróom fukk ak juróom benn yeneen licence yoo xam ne ñu ngi koy laajteewaat. donc ñun loolu moo doon suñu suñu suñu mbébét euh, biñ ko waxee euh, ministre bi nañu euh, moom xamul fond dossier bi. Euh, mais, mais il y a une continuité de l'État. mais conseil technique mi ngi fa normalement mais mais mais nañu joxe suñu avis ñu xam ne lii fii moom dañu ragal ne fa mu nekkoon fa la jëmaat xam nga papale Mhm. ci pêche bi dañ fi am problème ak ay russe russe waaw depuis 1991 gaalu russe yi doon ñëw fii di fi napp illégalement ñu jox leen autorisation yoo xam ni méngoowul dëppoowul ak yoon après ñu am fi problème ak ay coréen coréen yi ñëw def fi ay nationalisation wu bateau parce que poulpe moo génnoon fii Sénégal dans les années deux mille quatre-vingt-dix-neuf deux mille mhm. mu am fii au moins une ñeent fukki bateau coréen yu fi ñëw pour napp pulpe boobu bañ ko nappee ba pulpe bi dem gaal yi ne furaas naxasaay ci yooyu ma wax coréen mhm. ñu ngi bindu ci registre marine marchande sénégalaise ba léegi. mais comme ay bateau nationalité sénégalaise. voilà loolu sax laa bëggoon ñu ñëw parce que foofu foog nga leeral ñu parce que. Hmm? argument bu gaa yu bari di teg dañuy wax ne gaal yooyu euh, ñoom dañoo nekk de droit sénégalais. <laughs> léegi loolu laa bëgg nga leeral ñu parce que bu nekkee de droit sénégalais warul am problème. non mën na sax mën na sax mën na sax nekk droit sénégalais. Mhm. ba noppi am problème léegi expliquer ñu mécanisme bi lan waaw gis nga mécanisme bi euh, papale naxa naxa naxaate bi foofu la nekk euh, da ngay am coréen li ma lay wax lu ñu xam la parce ñi ko bëgg a utiliser. Uh-huh. dañuy ñëw ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci pêche bi di leen ko proposer donc ñun dañu koy proposer. maanaam ay chinois. ay chinois dañuy ñëw gis Sayer Seck. gis Sayer ne ko. waaw ñun dañoo bëgg napp Sénégal mais comme suñu dëkk Chine amul accord de pêche ak Sénégal léegi dañu ngay ñëw ñu def ñu maak yow. Uh-huh. société mixte. boo xam ne yow yaay say man mii Sayer Seck maay moom cinquante et pour cent yi man chinois bi moom moom quarante neuf pour cent bu ñu defee loolu. gaal bi walla gaal yi ñu def benn accord boo xam ne accord fictif la accord boo xam ne maanaam amul. teguwul ci fenn teguwul fenn. naxaate la naxaate la. ne gaal yi suñu société bi moo jënd cinquante et pour cent yi bu boobaa dinañ mën a dem def day daal di nekk société sénégalaise. Uh-huh. ñu daal di nekk majoritaire ci benn gaal ñu daal di dem ci état bi demander li nga xam ne mooy promesse de licence bu ministre bi joxe maanaam digaate ne bu ngeen paree seen procédure pour gaal bi am drapeau Sénégal dinañ leen mën a jox licence de pêche parce que promesse de licence boobu ngay yóbbu marine marchande. ak yeneen i euh, euh, euh, formalité mhm. pour que gaal bi mën a nekk gaalu sénégalais maanaam dootul nekk gaalu chinois mais en réalité chinois bi dafa la naan léegi yow man boo ma amelee licence ma fay la cent cinquante millions maanaam yow boo ko defalee cent millions boo fexee ba sama navire nekk droit sénégalais di napp am licence am licence di fay ma fay la cent millions ma fay la waaye gaal bi sa yoon nekku ci ngeen def contre lettre signé ko ku nekk te yow nga yéeg dugg dugg euh, seet à gauche set à droite say xarit say mbokk say euh, et cetera ñu jox la licence nga jox gaalu chinois yi chinois yi di napp yow nga tuuse sa xaalis toog fa lay jàpp sa sa njàmbur. donc kon kon yow gaalu chinois yi nu wax yëpp droit sénégalais yu ci ëpp noonu la demee. waaw dañuy dañuy dañuy mbubboo Sénégal ak sénégalais yi. pour mën a dugg ci biir pêche bi parce que bu fekkee ne mu boowuñu sénégalais yi. duñ mën a am pêche mënuñu napp Sénégal tant que Sénégal amul accord de pêche ak Chine mais papale mhm. société boo xam ne capital am cinq cent mille la maanaam téeméeri junni. Mhm. cinq cent mille francs CFA. capitalu société bi maanaam société bi ma defar man <laughs> wala sénégalais bi ak chinois bi cinq cent mille francs la nga mën a am fukki bateau yoo xam ne bu ci nekk bu ci nekk buy bees jar na cinq milliards loolu naka la mën a nekkee. Euh, répétez s'il te plaît pour ma pour pour téléspectateurs yi comprendre ah. mooy maanaam entreprise sénégalaise. gis nga entreprise yi demandé cinquante. six navires. waaw cinquante deux navires. en fait chinois la waaw. amu ci benn boo xam ne capital weesu na un million de francs fa maanaam société sénégalaise yi nga xam ne. waaw daanaka ñooy sponsorisé. waaw navire chinois amul kenn koo xam ne sa capital. weesu na un weesu na un million de francs CFA. te gaal yi napp bu nekk war naa mën a jar cinq milliards. waaw. loolu fu mu mën a nekk te société bu ci nekk ñii am nga quatre ñii am nga six ñii am nga dix euh, da ngay xool li nga xam ne mooy euh, fiw yan yiw yi mhm. te tey ci journal bi ñu génne ko waaw génne ko ne euh, ministre bi am na benn boo xam ne signé na ko ba pare bii nekk ci kaw sax quatre-vingt-dix-huit quatre mhm. loolu dinañ ci dellu si parce que mënul nekk non buñ ci dellu si loolu koy xuus si léegi ñu expliqué mais mais mais boo xoolee fiw yan yi mhm. fukk la ñu ak juróom benn ñu répartir leen ci ñaari société société chinoise yooyu funian yi. waaw fukk lañ ak juróom-benn. waaw. Ah? waaw muy 16. 16 ñu répartir leen ci ñaari société sénégalaise ñaari société benn bi mi ngi tudd Chihai Sénégal Fisheries. waaw mu am juróom-benn. juróom-benn. bi ci des tudd Univers fiche waaw. Univers Fish mu am fukk mi ngi nii te kii not technique la boo xam ne ministère des pêches moo ko génne. pour yónnee ñu ko pour que ñu mën a wax ndax dañ leen di jox promesse de licence wala joxuñ leen promesse de licence alors li li gën a yéeme nag ci mbir mi mooy tey bi may laata ñëw bi may jàngee journaux yi dama gis ne benn ci journaux yi génne nañ ne euh, navire bii nga xam ne daf doon laajte promesse de licence promesse de licence waaw pour mën a nekk sénégalais jox nañ ko licence depuis le 17 avril depuis le depuis le 17 avril. yéen kañ lañ leen convoqué woon. ñun ñu ngi waroon a joxe suñu réponse waaw le 17 avril. kon balaa ngeen di ñëw yéen ci réunion bi fekk na jël nañ décision yi ba pare. waaw bu fekkee ne waa ji kii kay. li journal bi wax le waaw. bu fekkee parce que. bu fekkee ne lu journal bi wax promesse de licence bi. bokk ak licence. non bokkul ak licence y a une différence. c'est ça mais promesse de licence bi moom nga war a jëkk am balaa bato bi war a mën a am raaya Sénégal. donc normalement jour bi ñu koy jox licence bateau bi amagul sax promesse de licence pour mën a am raaya Sénégal. Ah, donc li ngay wax ni dafa grave